boroom doxalina kuy deeti teel a sebbuloo tey waaju teel a jebbuloo noor ak nawet du noppuloo baykat bu ba jiitu naa bakk boroom Tuubaa sëñ Mor Talla Niang yàlla sa borom euh, fay la te yokku la yàlla sa borom gën laa dëgëral dafa mel ni rek moom Euh, ni ni may dama koy wax rek di wax ne ni mu jàng mi mel noonu la jikko ji mel ci ci ci ci woyof ak baax ak bëgg lu baax mës na maa woo kër ba ma mu jox ma juróom-ñaari karam naa xam naa booba daa xam man ni ma mel ci ci ci ci xaside gi euh, mu jox ma ko waaye yal na yàlla fay la gën laa dëgëral ci darajey sëñ Touba sëñ Saliou palaas ya ñuy màggal la say goney toog loolu bu ko sëriñ Moussa Ka waxee daa utilise baas bu gone waye ñi topon sëriñ bi ku ci nekk àtte nga xarnu mom min andalon lu ñu xamul lu mu doon moo tax xajuñ ci ginaaw ku dul mom sëriñ Ablaye jey yalla yalla doli koy leer daana wax naan doli borom kër ci surga ya ku raamoon jëm sëriñ Touba nga ram wuti ko wala nga dox jog wuti ko fekk ñoo ñe boof wër ko soko jubé war nga xamné ñi boof bofé sénu ñako xel mbira tax ñu boof mas na ma dégg sax kuma ci daaneel ne ndem bur ya ram, alim ya ram wali yaa ram ku fewul da ngay xol sax fi jamono ju toll yeen say ben nitu politicien sax dem siar seigne muntaha ñu reeyul ku naan da demone ci seigne bi reeyul seigne bi dara reeyul ci mom ndax ñoñe don ram ñoñe dañu atte fi atte fele dañ daan teen di la ca kaw mag ñi bala ñoo ñew ci Cheikh Amadou Dumbe wa jeureuf seigne amadou li ma baaxoo wax saa su nekk ci moom ak ñi mu defar catégorie boo jël ci mbaax am na ku fa yeggoon waaw ba gëm ni góor du taxaw ci kanamam mujj bank ay tànkam ci kanamam catégorie nag boo jël ci mbaax. waaw am na koo xam ni fa la nekkoon ba gëm ni góor dootu ne ci kanamam. dem ba plafonné. daa dem ba plafonné gëm ni góor dootu yéeg ci kanamam bari waa na ku seeti sëñ tubaa koo xam ne naan ah du ma fa yokkoo dara waaw dañ ma ni waaju baax la rek naa dem seeti ko bari na ci mag ñi ñoo xam ne bii ñëw dañoo wax ne duñ fi dolli dara dañ ko ni mag mu baax la ku baax la di doxal lislaam naa dem siyaare ko te jàll ñëw toog. jàppul woon ñoo xamante si nii xamuñ fu ñu jëm déedéet ñu jaamu yàlla bay dégg ndey la jàpp bari na ci mag ñi koo xam ne bi muy ñëw ci sëñ Tuubaa moo ngi wax ak boroomam moo tax waykat bi wax ni dox dem ba màkka wax ak malaaka tabaxi jàkka taxul di bàmba kooku moo wax dëgg waaw dox dem ba màkka tontoon malaaka tabaxi jàkka taxul di bàmba booy fanaani aras tey ñëw boo dajeeg Seex doom la lay woowe te bu gisee kooka gëlëm waaw waaw moom da ñëpp àddoom ah, la leen di woowe <laughs> loolooy dëgg de abu rijaalulaahi waaw gi ñuy wax Cheikh Rafal waxul ñoom Saliou sàmm ñi nga xam ne dañuy gént di ko fàtte rijaalulaahi lay wax abu rijaalulaahi góor ñay fekk ji décret ya di seede di bokk ñooña lañ wax ne Cheikh Rafal ay seen bàyyi te bu gisee sëñ Tuubaa gëlëm moo tax place yan war a màggal la say gone yi toog dañ ko war a teqamtal mhm. Baye Moussa Dane karaamaati rijaalay sa mbuubitim ne kon rijaalulaahi la wax seen karaama ya ñooy les ordures ci sa kër place yan war a màggal ñoom rijaal ya ñi nga xam ne dem nañ ba bokk ca rijaal ya place yan war a màggal la say gone goney toog mooy yow kon sa pënd kenn seenu ko billaahi ndax ñoom fañ war a màggal fa la sa gone yi toog daa am wax yoo xam ni soo ko déggee. Mm-hmm. da nga koo war a teqamtal waroo ci mu dugg sa nopp rek déedéet parce que bu xasee tudd rijaalullaahi rek ba noppi ni palaas yeen war a màggal kon suñ tubaa moom ñi ñuy wooye rijaalullaahi mm-hmm. ay jàmbaar la yegg nañ fa nu yegg waaye séen ko defunu ko ndax palaas yeen war a màggal la say gone yi toog ay como ñëwuñu woon ci moom bi mu waxee sëñ Modou Fadiama Niang waxi jébbalu dañu ko Ahmadou Bamba nu may jébbaloo man may sa mbokk dis gor su set wecc di aalimu kulli fannin jëfe sama xam-xam ba bu malaaka yi deyaale ma koy dégg may jébbalu nu may jébbaloo <laughs> waaye mu ne ko dégg ndey fexe ba bokk caa ko gën fexe ba bala noo deyaale ñu nañ ne Ahmadou Fadiama Niang noppi moo ko gën nee na mu mel ni da ngaa dóor kuur ci sama xol bi ma ne ko jox naa la sama sëñ Sidi Niang ak sëñ wax maa lay bàyyi sëñ dëkkaaw ball. nee na bis bi di gërëm bi ma wooyee ba ma daw ba ñëw ba yegsi ci moom nee na bi ma nee groupe sukk. Mhm. mu ma sabaram nee na gërëm na la. yonent bi gërëm na la. gërëm na la ngërëm lo xamni ne mer dootu ci top neena ni ma roof def ma ni gi mbeur yi def ànd ak man juk neena ma juk ba taxaw mu reñel ma neena dama tok rek deg ma lay kay naan <laughs> nañ ko nekk mu nopi reñel ma loolu mom dekk ko man barki seigne touba fa sa sa neena ci la deg lola chamadou Bamba te te ko du ko kesse ah ndax mam seigne jéeri wa dan sugu seigne touba da dem geej ba nopi mu wote wadan wax ni sama borom neena ma cheikh ahmadou bamba mi and ak nasaran bi mo dess sama digg ak mom ci ma yegg fi ma bëgg yegg lima soxla ci mom koka ko yor ki dem ba boromam wax ko du gone Cheikh Ibra Fall Abou Rijal mi ma la doon wax mhm. seigne Moussa ga ni mom Cheikh Ibra moy xibaarum ñebulom ba wax ni yalla mi ko mom moko ni Bamba mo la mom yalla mi ko mom yalla mi ko mom moo ko ni Bàmba moom kon moom waxoon na ak yàlla door a ñëw ci sëñ Touba. kon sëñ Touba jàppuloon ñoo xamante ni ku jóg di seen kilifa déedéet. déedéet ñim jàpp bu ñëwul woon kenn ku ne ci ñoom am kilifa ci lislaam bi dina la jafe. ay sëñ Daam Abdourahman Lo ñaari rakk. sëñ Daam Abdourahman Lo bu fi fekkuloon sëñ Touba dana jafe yilif lool. waaye ba ñuy wax ca wax yi ya xam nga kooku keneen la moom ndeysaan am na yoo xam ne sax xam naa gone yi du leen neex a wax waaye daal sëñ daam sëñ tubaa jaar naa ak moom fu bari mhm. Mhm. waaw jaar naa ak moom fu bare bare bare bare bare bare parce que suut la ko sëñ bi magee nag waaye mas nañoo waxante ba sëñ bi ni ko lakkum laa waxoon ak sa borom jox naa la ko illallah ba mu demee ci sëñ tubaa ni ko dama bëgg a gàddul murit yépp nangam bu yowmal xiyaamee sëñ bi deyaleeg borom borom bi génn ni ko sa borom nee na guddi gu jot kamilu alquran ngay naa fi la ñaari rak mooy contrat bi mu koy def di ko def ba am 90 ans man ni sëñ Basir Mbàkke xëy ni man de war naa seeti sëñ daam Abdourahman Lo la mu waxante woon ak sëñ tubaa ma aw ko ci ndax fi mu toll mag la mhm suñ basiru neena ma xey si ko mu ubbi ñu waxtaan mané ko man day ñaari ràkk yi ngay naafile kamil guddi gu sak la ñu won ngir ngir nga dalu ma awla ci mu ni ko biig suratul mulk la fàtte la ni ma ngi ci taxaway bu jekk bi la ilaha illallah budul won digal la day wéyee waaw mu ni ko biig biig suratul mulk la fàtte la ni rukun rukon aguma rukon bu jekk bi ma ci rakk. te booy seet bu mulki kaamil jeex na. jeex na. nga biig surtout mulki laa fàttalikoo ni maa ngi maa ngi ci bu njëkk maa ngi ci taxawaay bu njëkk bi te boobu am na quatre-vingt-dix ans. am na sax looy nettali loolu daal digganteem ak sëñ a Habsalo. waaw ak Thierno Ibrahima daamal daaru. waaw ñoom la ñoom ñett sëñ bi. waxoon loolu kenn mësu koo gis. ñoom ñett bi waxoon loolu kat ñoom ñett la ko sëñ bi wax. Thierno bindal jamaa amu bind jiim mi ma ayin. ñu ko nuñ koy nu ngeen koy fire mu ni ko boole na mu ni ko noonu la yàlla boole seen i mbir yéen ñett yi mu déglu kii bëtt Cerno Ibra Faati déglu mu ni ko Cerno yeneen bokk at mu ngeen ñibbi àjjana Ibra Faati ni tekk mu ni ko Cerno kuy bind sa tur ana lu muy njëkk bind mu ni ko jiim mu ni ko bu at mi teroo yaay njëkk a dem ana koy bind turu Momar Absa lu muy jëkk bind mu ni ko miim jamaa la ko bind loo mu ni ko boo demee Momar Absa door a dem ana ko bind turu abdurrahman lu muy lu muy bind mo muju jamaa su ngeen demee abdurrahman de baan ma téro sëñ morab sa njëkk a liggéey di neex biñ koy biñ koy jël ci ngir denc ko fekk mu dekk ab taam wax ak mom sëñ morab sa ab taam wax ak mom mun ko wax dégg ñaar ñaar ma indi ñaar ma delo ci dama waaw dama dégg nga wax ak sa rakk yi ba ngeen bëgg maa denc fii ci ndaam gi te man cheikh Amadou cheikh Amadou Bamba ma doon liggéeyal ca moom lay tëri bi ci des tëdd ma ndaam moom mi demam doomam la wax ko boobu ñu ngi koy waajal booba doom doomam moo woo ay rakkam ñu déggoo ci denc ko ci dëkkam bi mun ko dama dama dégg ngeen waxante nga waxante ak sa rakk yi <laughs> ba bëgg maa denc fii ci ndaam té man si Amadou Bamba mo doon liggéeyal ci mom lay tay bi ci dess Seigne bee ma waxoon sëñ bee waxoon Cerno ni moy dem ma doora dem ma bëgg nek rek bu Cerno démé ma dem li la sëñ Tuubaa waxoon laa ilaaha illallaah fu mu am ci àddina jant bu so rek lan ko wax ni Cerno dem na mu xey fajar am Cerno dem na bu ci suba ci guddii ñu door ko ko yegal ci jant bi so ñu wax ko ko mu xey dem nga dig Baye Moussa Ka mam maam Thierno dem na yobbu Serigne dam Serigne Momar hafsa ña ngay nuyoog Ndam wa waaw sëñ Sirelo ka ca sannoo si nga xamni neena bima ne bi nga la fas gi borom Touba gi bimu joge ci geej gi taxaw taxaw ci pencum sanno si mi laccé ma bama gis ko ma jox ko loxo ni nip nga gi womat mu ma Sirelo foo may dalal neena moma gënal yalla atta jam ñepp ni ma sirelo dugal aljana ngi neena na keroog loolu wax waxi borom tuba joji sirelo fo ma moo moma ko te señ sirelo kat ken la ci gaay de señ sirelo señ tuba daaru ko mu yag musulmal señ Masamba xana sama ko bu yag na mu ne ko waaw mu ne ko seen borom ma doon laaj sama neew yi nga xamni dañu leena denc fudul tuba ndax ma wut ku leen di jeli di leen indi tuba nee na bala ma koo tontu la Cyril Lo bàyyi ko ca xabroom dikk ni ma ba ma ko santee ma leen di jëli. maa la ko wax. sëñ Massamba nee na. sama xel mi daal di dem ci xanaa kon de soxna jaara yi njëkk ñëw sëñ Tuubaa xel ak xol tontu moom. waaw xanaa kon de soxna jaara yi njëkk a ñëw nee mu ni ma saa baaraam ne ma Massamba kooku mag la bisa ngi ñëw ñëpp di ko fekk fa mu ne. wallaahi wér na. sëñ Cyril Lo. la waxoon tàbbi ngeen àjjana. borom sanno si waw sant len yalla tàbbi ngeen aljana tàbbi ngeen aljana gor gu bokoy koy sax da nan la noo waxut danañ tàbbañ def ne tàbbi ngeen aljana tàbbi ngeen aljana ma nopi yeen wa sanna ci laylatul khadr ja bamba nan len mun ku dégg na xamé xàmmee nañu xamé nañu leen <laughs> waaw waaw yar na ko de nga nganuk borom tuba tubaa nga nganuk borom tuba googu ñoomi fan ci koor hmm. lol leneen la di moy tolok magal suñ soñ bu mbacké mala ko wax mala ko wax suñ tuba mala ko wax seigne Touba du mom kese ñi ma andalon du nu ay nit bokku ñoom nit ñi programme ñi ma andalon ñi ko sant woon nangoo dooni ndaw ci kanamam muy woote ñuy daw mas naa ko wax ci jangi eh, yakar na keur Cheikh Mourou Mbuub la won ci ñom bacc fay ma jël kaddu ga mani len mani len digënté bi nak ku ngeen fi dégg ñukoy ciow mag ngeen fi dégg ñukoy ciow wonañ ko fi mu dukkan waaw fonkal me foofoon fofu mbërum yàlla bi foofu la boofoon mbër mi yàlla waajal foofu la boofoon xanaa xamoo lislaam bépp bu àndoon bu lislaam bépp àndoon laa la wax bu lislaam bépp àndoon di lenn ñu takk too bu suñ tubaa ñëwee moom la ñuy samp ci kanam moom la ñuy teg mbërum yàlla mi mooy mbërum yàlla bi ku dul rasulullaay fii nga koy war a féete kooku ku dul yonent bi rek fii nga war a ñëw barki seexul xaddim maa la ko wax la muy wax ni kullu nabiyin wa rasulin yatba'u xalfal wasilati huwal mutaba'u noonu nii la ko dalee ci gaa yu baax yi kuy waaju baax fii ngay féete borom Tuubaa bu ñu demee ni yonent bi noonu la suñ tubaab manee gaa yu baax yi ni yonent bi gënee yonent la suñ Tuubaa gënee gaa yu baax yi akrim bihi min imaamin muhtadin alamin maljala xibaadi wa man jaahum min alfitani <laughs> loolu daal la yàlla dogal ku ko nangul almasaari maanaam marque mark marque sëñ Tuubaa or séri la bu fekkoon lu ñu mën a wax xale yi dégg ko or série la ci mbindee fi yàlla yi bokkul ak ñoom nu mu ñëwee bokkul ak ñoom nu mu fi dundee waaw bokkuñ terminus moom nit ñi moom dafa defar ñoo xamante si nii ñooy caamoo ñibbi àjjana xam nga li ma la wax léegi ci sëñ Mor Absalo moom moo yàkkamti nee na bëgg a dem mu bëgg a nekk ba Cerno dem ko xamul fa nga jëm xamoo fa dara yaakaaroo fa dara waaye waaye doo yàkkamtee dem sëñ ma Samba Diop Samb moo ko waxoon ni may dem waaw mu ni ko lu tax mun dangaa soñ ceernu mi ci njàngum ndaw ñi te yaa ma waxoon ni naa sant yàlla ndax dinaa dund ba fàttu ma dégg si gil digaale sama wasila te ay sama wasila kon maay dem mu ni ko foo ko bëgg a defe ku war a xam foo koy defee nag kenn bu la ko laaj te décret la woon bu suñ borom bu mu waxoon ni wa maa tadri nafsun si taksibu gadan mhm. wa maa mhm. tadri nafsun bi ay ardin tamuutu wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamuutu dañ koo supprimer sëñ Masamba Diop Samb ndax dañ ko ne ana foo ko bëgg a defee mu ni fii lan ma moome waaye kajoor lañ ma miine mu ni ko waajal dem daaru saam mu jóg jëm daaru saam te xam ne day faat naa mhm. la ko wax ay gone toppuñ ko woon de gone yi sax seen gone yi du ñuy gone. sëñ Mbacke Bousso am na ñoo xam ne seen nattuwaay ci sëñ Mbacke lañ ko defoon ñoom. waaw déet kooku mooy muftiw yoon wi sëñ Mbacke buso bi ñu départ jëm màkk xam nga lan la wax. Hmm. lépp lu ñuy bind ndeyjoor bu leen neexee nu lakk ko ma bindaat ko. jëm màkk dañuy fii ba foofa di laaj noppi leen maa koy tontu. lépp luy bind mbind mu jógee ndeyjoor sëñ Mbacke Bousso nee na bu leen neexee nañ ko lakk ma bindaat ko. sëñ tubaa ko jàngal sëñ tubaa bi est-ce que xam nga sëñ Mbàkke Buso bi muy jàng Masaalikul Jinaan mhm. du wow sëñ tubaa day bind aw xët jàngal ko sëñ Mbàkke Buso dooru bind weneen noonu la sëñ Mbàkke Buso jàngee Masaalikul Jinaan Yuusu na foto sëñ Mbàkke Buso ku ko gën a jaamu yàlla ku ko gën a jaamu yàlla amu fi sëñ Mbàkke Buso ku ko gën a sel gën koo sunni gën koo dund tasawuf amul sëñ tubaa rekk a ko mën a yilif kilifa gu mag ci Sénégal nee na sëñ Mbàkke Bousso doomi Serigne Bousso bi la sëriñ Bousso bi moo bokk ak Soxna Jaara baayam ak Soxna Jaara ñoo bokk ñaari waajur kañ doon wax doomi Adama waaw waaw maa la ko wax Cheikh Seydil Hadji Malick mhm. moo wax ni Mbàkke Bousso xam-xam bi ma xam ci moom xam mhm. sàmm gi ma xam ci moom mhm. ragal yàlla gi ma xam ci moom <laughs> képp koo xamante si nii nangul na la ba nangu nga koy ni muy dem amoo morom. waaw loolu la Mamadou Hadj moo ko wax. Cheikh Sidi Hadj Malick nga ko wax. sëñ Mbacke Bousso. ah sëñ Tuubaa ñëpp xam ne amul morom. sëñ Mbacke Bousso ñëpp a ci moom. daa plafonné. photo bi rek bu ñu la ko affiché te xamoo ku mu doon dangay xam ne kii mooy mufti bi. yàlla na gudd fan. sëñ Tuubaa bi muy jógee Touba sëñ Mbacke Bousso la fa bàyyi. sëñ Tuubaa benn yoon rek la jógee Touba. ben juga la joge Touba moy dem Mbacke bari jor affaire bi jeex te la geje Touba ba nim fa ñewate ñewum gi ñu naan ren le centenaire bi ba muy dem señ Mbacke Bousso la fa bàyyi niko bu kenn wala fi kenn rombu ku ñew ngir jang jangal ko señ Touba ku mu ne ku ñew ngir jang jangal ko yàpp xam-xam ci nit ni parce que moom ko jangal señ Mbacke mom señ Touba señ Touba yalla ko jangal ku mu ni ma am nga xam-xam am nga xam-xam lool la wax sax waaw loolu la wax sëñ Ibrahima rabbi muallimi uh-huh.

عاقل بالكلاب منصرفا بسفدي بشرت أن رسول الله خدمني خادم بشرت أن رسول الله خدمني وأن أحمد عمري بالنبي قبلا faaniya dee nga ba dekki dox nga ba jekki yow rekk a tekki tekkil nu bàmba koo muy junki te yaa tax ñépp funki bala ma yaa tënki tànk ñañ tënk bàmba Sëriñ Tuuba nga boog nga yaa nga teewu lambar na yaa nga teewu te booba yaa nga teew ndeysaan Tuuba ak ñaaree mi bàmba dara upp ko boo duyoo bari ndox boo tojee bari bay Cheikh Abibu Laay maami Sëriñ Mamoore i ma ndumbe xabaan Cheikh Bamba Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba na ñëpp def lii nu màggal Xaadimu Rasuulillaahi borom màggal gi haajartu lillaahi wa min laibin bu saraati فالعناء بانتفاء إلى لولو loolu neex na lool moo sama baat bi neexoon zikri min ayatin tutula min ikama tutula oh borom jumaa ji nee naa fii zikri min naayatin tudlaa min kawa ayatin tudlaa min kawa rasulina fi zikri min la ilaha illa allah tudlaa مني صلاح على رسول الله خادم رسولنا في ذكر من لا اله الا الله نعمة والكريم لي أمان البار من نعمة من نعمة والبار من نعمة في البار من نعمة والبار الفتح والباب نعم في البر من نعمة me. there. للهوى أي جغو بلا مكي جراجة سامورا بلا مكي جراجة للهوى سج بلا سجي جراجة باري هو ما يخول ألاج بلا مكي برم دي جراجة استغفر الله تعالى الخواتر بعد ومن قرب ومن عجم ما زلت أتي بما لم يرد ما ما ما لكنا منذ زمان وما لم يأتي خالدنا أمامي فقلت مستغفرا ولا أساتر الله استغفر الله جل الله الله لا قلت مستغفرا لا يساترنا جل الله جل الله سيرين بارا مباكي باخ البارا يا إله إلا العظم إرمانا بارر بارا من لمن برم بنيانا معلم الجهاد والمعلم معلم الجهال والعلا فقلت مستغفرا والله ساترنا استغفر الله جل الله راسخنا بار البار يا كلكم فليقل خوفا لبائسنا سفر الله جل الله بائسنا فكلكم عبد القادر مكي جيل برب بغداد جراجة فليقل أي سرين بزير عبد القادر جراجة خوفا لبائسنا جبلان مكي برم تبا بلال جراجة سفر الله جل الله بائسنا اليوم مستحمل laaki wal umami tuuba ilallahi waxtaan boobu laa dafa dem daas loolu ku ma xam kaa sama tam tuuba ilallahi sëriñ Saliou Mbacké borom daara ñaaru bari sëriñ Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf waata daaw ma laa dawete sëriñ Saliou Mbacké bàyyi soxna wàllu Mbacké soxna moom sëriñ Saliou jërëjëf waata daaw ma laa Mbacke Serigne Mame Mor Mbacke Serigne Noyin Mbacke Jiraay Jël mam jor na eh, eh, ah, fati borom daaru Serigne Bassirou Anta Ñang Jiraay Jël geesu la ba ku wax mi mu kaasafatan fakuluna falyatub yarju musaadafatan astaghfirullah ad'afal mudaafatan mimma sakartu min al ajnasi wal xisami xaadim rasulullah yi jërëjëf lamaw ay Seex Modou Moussa Mbacké jërëjëf sëriñ Mbacké soxna loo bàyyi sëriñ xaadim naari jërëjëf min baadi ma kuntu la faxrin wa sadarare خادم رسول الله إجراجة حراج فالما كبرم دندك بغو إجراجة من وفي الأسر سبا صلاة على المختار من مداري ثم الصلاة على المختار من مداري خير البرية من باكن ومبتزل ثم الصلاة على المختار من مدراء خير البرية من باكن من باكن ومبتسم على المختار من مدراء خير البرية من باكن من باكن باك ومبتسم على جفلوبا خير البريات من باكن

عبد الله أبي هاشم عبد المناف قصي كلاب مرتكب لوي خالد فير مالك ندر كنان قصيم عليا تتما أو تذنب لا توا تغارت كل يا تواب يا الله محمد جنج من رسول الله محمد على عبد المطلب هاشم عبد المناف حسين كلاب مراد تكاب لوي خالد فير مالك ندر كنان قسيمة عليا تتما أو تذن لا تواتار تقول يا تواب يا الله محمد كنك من رسول الله عليا محمد ابن عبد الله عبد المطلب هاشم عبد المناف خزي كلاب تكاب لوي خالد فير مالك ندر كنان قسيمة عليا تتما أو تدن بلا توا تقول يا تواب يا الله محمد قرق منا رسول الله عليا تتما أو تدن كنان قسيمة مدركة sar